que Dieu nous vive. fi ñuy dooree nag fële ca Kër Massar ndaw si ndaw yi ñu ngi jooy di xataraayu ne amoon nañ yaakaar ci ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ndax nag lii lañ doon jooy ci euh, Macky Sall tey Macky dem na ñu jël seen yaakaar daal di koy porte sur la personne de Ousmane Sonko ak Diomaye teewut tax nii lañ leen dikkee te deux mois rek lañ defadul ci nguur gi ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. waa ji si ginnaaw waa mairie bi moo ñëw contact benn affaire da ngaa contact jaaree ko ginnaaw dóor ko mu ngi toj mu ñëwaat gaañ booy bi saawaay di ko song mu jël paaga naan da koy génnee. lii lañ doon jooy ci Macky Sall di ko jooy ci Macky Sall ba gis Sonko am ci moom yaakaar ñun ñëpp muy góor di jigéen. waa xam nga euh, dafa am lu ñuy wax occupation anarchique mooy nekkin boo xam ne teguwul ci dëgg teguwul ci yoon ci kaw tali loolu nag mën a jur ay jéeya mën nañ ci wax wàllu insécurité totale boo xam ne day am ci diggante oto yi ak doomu aadama yi mais également mën nañ ci jàng ni à tout moment day am ay accident yoo xam ne daf fiy am loolu nag dañ koy xeex duñu nangu kenn di jaay ci kaw tali bi wala ngay jaay ci mbedd mi wala ngay jaay ci foo xam ne waroo fa jaayee bu ëllëgee lépp lu am ci responsabilité mairie bi lay doon. mairie def nañu lépp lu ñu waroon def ci liggéey avertir nañu ñëpp pour ñëpp mën a tegu ci yoon mën a tegu ci dëgg je vous remercie. yéeme na daal en tout cas moom gendarmerie sax moo ko mujjee encadré pour l' instant pour mu mën a dem boo moytul nag euh, gaz lacrymogène tàkk fi ndax euh, oto yi sax fi mu toll nii dañ leen a bloqué fii ci Kër Massar li yëpp ci Kër Massar la xewee Mor déguerpissement bi moo ko waral actuellement gis nga gars yi ngi waxtaan ak gendarmerie yaa ngi gis message bi Mor ma xool li gars yi di wax message bi ñuy wax voilà. Euh, ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy boole. ñu ngi koy boole gendarmerie nee nañ moom ci boppam moo yoroon arme blanche bi ñuy yëkkati euh, bi ñuy yëkkati euh, ambulants yi euh, gars yi nag dañu mer. xamné moy responsable euh, sécurité bu euh, agent municipal oui donc Mor mo ngi noonu ñoo ngi koy yobbu gendarmerie bi ñu ñëwee na dañ ko teg loxo ñoo ngi koy yobbu gis nga gaa nga ngi nga yuxu ngi ngi soko contane kontaan nga soko contane jëlal lolu li mo ngi am ci Kër Massar fi euh, ci rond-point bu Kër Massar arrêté nañu ki nga xamné mom moom moo sécurité municipale municipale bi donc gis nga lolu li moy li fi am tay

la ñu amoon yëpp jënd nañ ko ci ay matériel war koo war ko euh, jaay ci perte tabaski bi donc nag euh, ñoom euh, joxoñ nañ baaraamu tuuma nag maire bi joxoñ nañ tam baaraamu tuuma ñi nga xam te ni ñooy autorités municipaux yi mu des nag ñu xool fan la want ni mu jëkk ba te parce que ñoom dafa mel dañu bëgg a forcer dem lalaat commencé waat jaay doote xam nañ ne du yoon waaye li ñuy ko ci autorités yi mooy ñu wutal leen fu ñu jaayee ba noppi soog leen a yëkkate fi ñu nekk nii. mu ngi noonu ñoo ko déggandoo yaakaar bi lañuy amoon ci eh, Sonko euh, lii lañuy jooyoon ci makki Sall mu nekk kaddu yooyu nga xamante ne ay ndaw yu dëkk foofu ca Kër Massar ñoo ko yëkkati. daa ne kii di sunko dafa daal di tas seen yaakaar muy nekkoon mardi le 21 mai 2024 donc nekkul loo xamante ne lu yàgg la en deux mois euh, ku ci nekk ngi génn di wax waaye nag man ci condam fermement génn di wax yooyu noonu est-ce que teelut est-ce que teelut ngeen génn di jooy parce que nit ki aussi nee naa leen ngeen da ngeen da ngeen am yaakaar waaye yéen seen yaakaar teel naa tas di seen yaakaar teel naa tas il faut arrêter dem makidam na munoo leen fexe fexe fexe fexe fexe ba ñiy jóge si tant que deux mille vingt neuf jotut kon nag seen jooy yi teel ngeen jooy bu yàggee da ngeen seen rongo ñi dina jeex dingeen bëgg a jooy te doo leen mën a jooy kon nag il faut arrêter etre patient xaar ñi nga xamante ne yéen yéena ko wax moom ngeen am yaakaar mais moom ngeen bëgg moom ngeen wóolu donc nag Hmm. moom ngeen wóolu même ngeen bëgg nee naa leen munoo leen wax wax wax wax ba Macky ñëwaat pour Macky moom c'est fini ñun sa ñoo bëggatul ñëwaat ñun sénégalais Macky na dem rek te Macky dem na mu ngi moom daf ñu yombalal mbir yi dafa pare 14 heures 14 heures dem na xaaru fi sax ndogu kon ngeen xam ne Macky moo njëkkoon pare pour dem léegi nag yàlla dafa dogal. Euh, Macky dafa bonoon Macky baaxut Macky amul mànde xol bu bon la yor dara ñoro ko dul intérêt boppam li yëpp Macky dégg na ko Macky ne tekk tekkaaral waaw te Macky dem na ngeen indi ka ngeen xamante ne nee ngeen moo gën am waliw la am yonent la am lépp la mën na xam na waaye yéen deux mois ngeen commencé jooy yéen léegi lan mooy seen problème yéen lan lan ngeen bëgg sénégalais lan la bëgg kii baaxul jóge na fi ngeen indi ku baax ngeen jortu woon ni kooku moo baax ngeen indi ko mais man gëm naa ni su baaxul sa dafa teel pour ngeen wax ko te gëm naa ni dina baax président Diomaye dina doxal. ba tey fële ca Kër Massar ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. waa Kër Massar ni ngeen sonnee ci Diomaye Fallou li la leen fay waa Kër Massar metti na vraiment mais muñ leen rek mënoon nañ leen a bàyyi sax bañ tabaski ba pare ak ngeen sonnee ci Diomaye Fallou yëpp. yow moom yow moom seytaane nga yow yow da bëgg a jaxase waa Kër Massar ak Sonko ak Jomaay waa Kër Massar d' accord sonn nañ d' lii du lii lañ leblee du lii d' accord ah bu leen fàtte nag meeting bu mag ba Kër Massar la amee woon ba Sonko dinaa dem naa sama bàmmeelu pàpp tàggu naa sama yaay def naa sama testament Macky Sall danaa ko jox sama bakkan maa mu jël bakkanam du Macky Sall fii Sonko Kër Massar la ko waxee woon kon nag Kër Massar dañoo lebal Sonko lu baax Sonko waroo leen bàyyi waroo leen def nii Sonko nag waroo woon ginnaaw waa Kër Massar ndax waa Kër Massar meeting ba nga def foofu nekkoon na meeting boo xamante ne ilaa yow mi nit du ko fàtte mbooloo bu takk bu fa daje woon man maa ngi fàttaliku ndeysaan ma war a jënd añ woo su woo sama benn xarit ne tey moom tey moom mooy lol quoi ma ne ko tey fo fo fo fo go jox ma dara hee waa ji ndekete waa Sonko la mune ma lan mune ma 2000 francs la yor te damay pass te Sonko la jëm ma ko ah mune ma waa ma ko waa demal yoru jamm yalla nga dem ci jamm dik ci jamm kon nga xam wa waa Kër Massar keroog la ñu yëg kenn mënu koo yëg ci àdduna kenn xamul lan la mooy bànnee ak mbëtte ay Sonko nak à 2 mois Sonko ngay seetaan ñuy def nii waa Kër Massar waa Kër Massar keroog kenn añut kenn ndekkiwut ñee lak naan nañ ci ay lacrymogène ñee buuxante ci ñee seen dàll dagg ci ñee ñu sàcc ci seeni périg ñee ñu sàcc ci seeni telefon lu ne ndax jëmm Sonko bi doon ñëw Kër Massar kon nag waa Kër Massar jooy bi ñu jooy dëgg teel na waaye waruñu woon jooy ndax lebaluñ la ko Sonko Sonko wa keur masar euh wa keur masar est-ce sama akkat dalu len sax agn ba ma waron agn waji pass ko dem seyti sunku ah yalla baax na yàlla na lu ne damay balak damay kaf mais euh wa keur masar da ngeen teela a wax quoi noppalu len na ngeen may jomay touti mu mu liggey quoi parce que dina liggey dina liggey momine la xamul dara xale la xamul dara fum mu dañ koy teete teete teete teete ba taxaw bi dëgër ñu teete ko teete ko ba ndox bi dëgër ñu teete ko teete bu mu commencé daw mbir yi commencé déclenché nag fu nekk nii muñ rek muñ muñ waaw moom mu ngi door a am sens ci mim réew maanaam muñal lu métti lañuy ñuy muñ mu ngi door am sens ci mbuuru président Diomaye bii nañu muñ rek mhm, lu métti yàggut